amé site internet dalé nak jàmm seen chaîne préférée muy di TV ap xiba dañ koy doré ci kaddu yi nga xamante marisanya député militi ki marissa nya dañ ko yëkkati jëmale ko nak ñen ci ay candidat ñi nga xamné ko ñoo ngi laaj bop réew Sénégal momu gi marissa nya nak kon dal di dénoncé manque d'engagement bi nga xamante ni rek kon ñen ci ay candidat dañ nañ koy am jamono jilé ndax nak ma ngay xamné ni amna ci ay ya candidat ñoo xamante ni soxlawuñu ya ñuy prendre ay engagement ndax bis buñu ci si réew mo Sénégal wa France ñuy gouverner seen place as way tamit conseil administration yi nga xamante ni rek namm nañ koo def jëm nag ci ay intérêt de l'impérialisme en général ak intérêt de la France en particulier ba tax nag mu ngay xam ne ni yooyu les candidats waruñoo nekk fii ñuy wax askan wi ku ñu war a voter ndax nag jamono jile rek peuple bi xam nañu ku ñuy voter way tamit xam nañu rek kon lan moo tax ñu koy voter ndax nag kon moom Guy Marius Sagna mu ngay xam ne ni kon nañu respecté askan wi way tamit ñu bàyyi rek ñu daal di choisir seen candidat ci Bassirou Diomaye fay bis bu nekké président ab changement bu mag mag dina am ci réew mo Sénégal jëm nak ci mo corruption way tamit loo xamanteni ay responsabilité ñu koy neub wala sa ay homme d'état ba tax nak kon moma gi mari Sagna mo ngay xamni rek ni rek Bassirou nekk na candidat bu honnête intègre way tamit bu transparent bu am respect ci askan wi do service du peuple ci naw rek mo ngay xamni ni kon 5e président Sonko may jomay way tamit mo ngay xamni rek nañu ar vote mi dal di dem retiré seen ay carte électeurs mo xam ne ni blé victoire rek dinañ ko am dès premier tour nekk yoy les kàddu yi nga xamanteni mom gui mari Sagna daal dina koy publier ci page ma Facebook daal di dénoncé nag kon manque d'engagement bi nga xamanteni ñen ci ay candidat politique dañ nañ koy am ci réew mu Sénégal way tamit mu ngay wax ni rek di Bassirou jomay fay mo nek ben profil bi nga xam rek kon bu falo ci bop réew mu Sénégal ap changement dina am ci jafe jafé yi nga xamanteni rek kon dañ nañ koy nemmeeku jamono diwaan jile ba tey nag ñu daal di wéyandi ak yeen ci xibaar yi niki démb nak cortège yu ñi di wa taxaw sénégal ci njiitalu kalifa Ababakar sall ci caravane bi nga xamne rek kon ñong ko doon amal fofé ci diwanu dakar mu mujjé won def ab accident bu metti ci booru camrine jëm nak ci kër masar bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante nak moy maire bu dakar di Barthélémy Dias mu nga xamne ni rek kon nañ ci am lu tollu ak 5 blessés ñaar ñi rek ñu daal di si ay gañu